asalaamaaleykum mbokk yi ni seetaan ci télévision Futurs Médias asalaamaaleykum nuyu nañ leen ci seen émission mag bi nga xamante moom la ñuy wax daral daral nag tey ñëw na fii ci bergerie maam maam Ali Wali Silla bergerie boobu lañ ñëw tey fekk si fi ki nga xamante ni mooy maam góor ci émission mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax daral bi eh, xam naa lu ñu sori dañuy àndandoo ko off ñu dugg ci biir bergerie bi mais ñu ànd koog nag sponsor mag boobu nga xamante ni mooy MTBK nekk foofu ca Kébémer indil ñu ripaas jawdi ripaas jawdi nekk ripaas bu baax a baax ñu àndandoo ñu dugg si biir ma wan leen bergerie maam góor yow mi toog di ma seetaan teel sa jàppal jëlal numéro téléphone yi léegi maam góor tegal la xar yi ci table ji wan la xar yi nga xamante ni Mor Yomb la la tudde Mor Yomb la ko tudde ñu dem ci biir ah, amee maam nuyu naa la maam ñëw naa ci yow maam nuyu naa la mais bala ma laa dugg ci émission bi dama lay benn cadeau cadeau baa ngi nii maam kii mooy repas jaww ji repas bi MTBK bu Kébémer ñoom ñoo koy liggéey benn société bu nekk Kébémer ñoo tudd MTBK ñooy indi ripaas jawdi jawdi nag rep nekk ripaas boo xam si na xar man na ko lekk nag mën na ko lekk fas mën na ko nekk yéen yéen éleveurs yéen la ko indil lan ngay wax ci ripaas bi nga xamante ne moom laa indi tey cadeau la yow laa xamay may cadeau. alhamdulilah sama ma peex vraiment sama xol sedd na kontaan naa parce lii yàgg nañ ko dégg te gisuñu ko kon boo ko womatee ba mu ñëw ci ñun ak ci indi ko ko place am mu ko war a indi. indi ko ko fi nga ko war a indi vraiment mais yàgg nañ koo dégg ak baaxaayam te te bi mu ñëwee ba fii xar yi léegi dañuy xool sax di jéem a bënn saako yi ndax xet gu neex gi muy xet vraiment macha allah comme indi ko ko place léegi nag fan may présenté tey fan la ñuy commencé nga ma. dama bëggoon ñu commencé yi nga xamante ni mooy gën a nekk yow xéwal parce que ñun vraiment lii lañ koy def pour am pour xéwal ñëpp mën am xéwal te itam euh, lii liñ ci gën a bàyyi dëggantaan dëgëral suñ taxawaay ci élevage bi. jàppale ñëpp jàppale suñu bopp jàppale ñëpp ñoo xam li ñu bëgg. ñu dem foofu bisimilah. parce que fii mooy xar yi ñun yor yi ci ndaw mooy nekk nii mooy xar yi nga xam ne moo tàmbalee ak quatre vingt mille quatre vingt dix mille cent mille ba cent vingt ba quatre ba cent ba cent kon am na. am na ci Maam Góor si la. bu cent mille bu cent waaye ku ci bëgg nag da ngay gaaw parce que prix yu ndaw yi day gën a gaaw a jeex moo tax maa ngi ñaan ñëpp ñu gën a gaaw a jeex incha allah. léegi maam Gor ginnaaw jugee nañ ci yu 80 yi jëm ba 100 léegi moom yu ñaata la. yii ñu ngi jar 175 180 euh, ba 200 ba 225 am na côté bi quoi ba 225 am na côté bi. mais maam Gor yéen yi nga ne ay 125 150 yooyu noonu. non ñun yëf yi dañ ciy def lépp ñu man pour nit ñi mën a am tabaski ci xéwal moo tax dañu bëgg nit ñi. mais maam Gor nag li nga waxoon moo moom gëm naa yaay moo moo yombale. non ñun yëf yi daaw la nga élevage li ci mën a am. du du jour tabaski nga koy am da ngay liggéey si li ngay liggéey ba mën jour tabaski da ngay ñëw pour jàppale nit ñi ñu mën am xéewal. moo tax jàppale nit ñi. non bien jàppale nit ñi jàppale sama bopp. kon yii nii ay 125 150 200 yooyu noonu lu côté boobu yooyu noonu. yooyu mooy côté bi yëpp. côté yi ñooy 200 ba ci fii. ba fii fii man da ngay nekk 200 225. fii da ngay àgg ci 200 225 250. mais yii ngeen gis nag moo tax ma bëgg nit ñi gaaw a ñëw parce que yii ngeen gis ñu takk si kër yooyu vert yëpp jar nañ. yàlla mi tim xam nan bii démb la jar ñu ngi ko jaayee cent soixante quinze bii démb la jar ñu ngi ko jaayee deux cent cinquante la jar ñu ngi ko jaayee deux cent mille bu mag bii ngeen di gis te muy mag li muy mag mag mag suñu wëlëre lañ ko jaay ñu ngi ko ko jaayee cinq mille francs bii cinq cent mille cinq lañ ko jaayee te boo doon dem feneen gars yi dañ lay wax ay un million deux cent moo bëgg nañ ku bëgg xar mu baax daal nga ñëw léegi maam bu ñu jógee ci deux cent cinquante yi ba trois cent léegi fan lañ jëm nii ñu ngi jëm ci quatre cent ak cinq cent comme bii mi ngi jar cinq cent bii mi ngi jar 400. mais maam Gour xar yi nii 400 milliards ak 500 milliards. yàlla mi itam xam na ni ñun foofu la ñuy toll ñun xar yi li ma la waxoon léegi ma jóg caaxaanuma de. ñun maam xanaa xar yi nag maam Gour ay 700000 800000. 900000 non li ma la waxoon léegi du mer mor yombale laa la wax. waaw man xam naa élevage xam naa xam naa opération tabaski ku fi nekk di téye xar yi di jéem a jaay lu seet di nga gis loo mus a gis parce que xar yi 80 pour cent yi xar yi moomoo leen ay nit a leen indi. ay gor lañ ñu yow. boo fi nekkee di dëgër lool di dëgëral ba xar yi des ci après yaa koy réccu rek yaay xam coono bi ngay daj ñun dañuy wàññi suñu xar yi jaay ko de ku bëgg nag na nga teel a ñëw parce que ñun dañuy jaay suñu xar numéro téléphone daa noonu ci écran bi jël leen gaaw ngeen wootee 77 420 04 15 77 420 04 15 woote leen te ñëw parce que xar moom pour nga confirmer que il faut nga ñëw ba gis ko quoi ñun ku la woo sax la neex nga livré ko te doo fay dara ah maa ngi oto foo mënti dem mën nañ livré maam maam léegi léegi bii ñi ma taxaw nii bii nii léegi bii nii bii moom xam naa oh pour lu gàtt gàtt jar na un million cinq cent. vraiment loolu mooy prix normal mais ñun temps yi li ma la mën a xamal. xar yi xar dañoo nekk ci. ñi ma ko wàññi de. wallaahi lansim dama koy wàññi. yàlla mi tim xam na dama koy wàññi à un million dama koy jaay. ma ma ma kii bi la jox un million. à un million dama koy jaay vraiment xar bi na un million cinq cent deux mais pour le moment à un million jaay te am na fi ñeenti moromam yu ni mel. benn ñeenti morom yoo xam ne ko jox un million jaay ma jaay ko benn ngi nii benn ñaar ñu ko nee. te soo mënee wax xaalis sax neex baat ñu wàññi ko. ñu am ñu def yo yow leneen yóbbul la ko te doo fay dara loolu moom ñun li ñu bëgg dañoo bëgg yëfi yi jàpp ni yàlla mi xam peex. waaw wallaahi azim dañoo bëgg yëf yi jàpp ni parce que du yëf yi du ay caaxaan li ñu du ay caaxaan li nga ci gën a am mooy nit ñi li nga ci gën a mën a am mooy doomu aadama yi. wax la yoo xamante ni boo xoolee xar boo ko xàmmee boo gisee boo ñëwee ni xar bii nga waxoon moo ñëwee ni fekk léegi ma jox la ko léegi million yàlla dem te xar bi bu doon ci gétt gi boo ko fekkee un million cinq cent génnewu ko fa deux millions génnewu ko waaye tabaski dafa ànd barke war a ànd ak xéewal nag ñun moom lañ ci bëgg de. ñu waxoon Mor Yomb la dëgg la. yàlla mi ngi xam ne maay maay moo daal. xam naa ne yaay grand Mor Yomb. gars dañ fiy ñëw sax di jënd ziar mais dañ ciy dañ ciy def xéewal ñun. mais maam catégorie bi ñu ñëw moom kii moom xam nga dañoo gis sax nga ber ko ci gétt gi mais maam kii moom yaakaar naa ne dem na 3 millions. non ma Diop valeur mooy 3 millions 500 mais en tant que tabaski yàlla mi ngi xam na ko fay un million un million deux cent dañ koy jaay. maam ni un fay un million un million deux koy jaay. xar mi ak ni mu toll nga ne un million. kii Sango Abdou Fall la doomu Sidi Baara la. amagul sax deux ans juste lay am deux ans deux mois la am. mais xale la. non te macha allah am ah, ni mu toll pour nga gis xar bu góor bi ni mu toll yombul te yàlla mi ngi xam ne fu fay un million deux cent un million un million deux cent dañ koy jaay. gisoo ko ñu ngi ko booleeg ay jeunes parce que jeunes gars yi dañu leen jaay ba ay 1 million mais ñun fii ku fi ñëw ay 400000 500000 300000 dañu lay jaay jeune mâle. mais jeune mâle yi pour ñu def géniteur la xanaa ñooñu. Eh bien gars ay éleveurs ñi nga xam ne dañuy bu ñu jaayee seen xar dañuy bëgg wër ñëw jënd si géniteur mais ñun ñu ngi leen di fi xaar di leen invité ñu ñëw jënd si géniteur yu baax yu am sang bu baax te dañ leen ciy defal xéewal bu baax dañ leen jaay ba 300000 250000 ba 500000 dañ koy jaay. kon maam góor nee na yemul ci tabaski bi dong de mais yéen ñi nga xamante ni yéen def élevage ñëw leen fii tamit soo leen ñëwee mu jaay leen ay jëlmaan yu baax yoo xam si ne da ngeen dem yóbbu seen i femelle rek teglu bu ko defee ngeen am ay sang yu baax. daal dem nekk ca kaw comme ñëpp. mais bii tamit xanaa àgg na moom tamit 3 millions. non kii mooy alwaar. kii am na valeur 3 millions. parce que ak jur na doom ñu fay si 4 millions jaay ñu waaye comme ñëw na ba fii une moog bee rek lañ yemale 1 million 200 1 million lañ koy jaay yàlla mi ci xam di wax naa la tabaski dafa ànd ak barke. ñu ngi ko ànd ak xar ñu ko booleel xar yii ñu ko booleel yëpp xar yëpp cent vingt cinq mille cent vingt cinq mille lañ ko jaay. yii cent vingt cinq mille cent vingt cinq mille. boo gis mu takk lu vert jar na. moom mais mais kii moom ñun nag ñu ngi invité gars yi nga xamante ne mën nañ dara ñuy jënd xaru laadum parce que jënd xaru laadum dafa am ñaari yu ci nekk da ngay am xar mu rafet parce que tabaski taar bi daf cee bokk jëmm ji da cee bokk ni mu mel da cee bokk te xaru laadum jënd ko dafa am bénéfice. boo ko jëndee ngir sa njaboot incha allah di di nga rey tabaski am ndawal gu baax goo xamante ni vraiment di nga am premier choix ba pare dina bari ba egg ci lool épp képp boo amee kilifa di ko jox fexeel ba jox ko xarit laadum parce que ñun suñ kilifa yi lañ am lépp loo leen jox ci lu baax di ko xet te ñoom dañoo jar jox lu baax kon maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaanal yàlla képp koy joxe jënd xar di ko joxee nga fexe jënd laadum. fii moom ay femelles laa fi gis femelles yi moom ah bi maanaam lii itam mooy lële rek mooy jeune mâle yi parce que boo boo bëggee am jeune mâle da am femelle soo amee femelle boole ko semelle pur sang boole ko ak jeune mâle pur sang loolu mooy laadum pur sang mais boo amee euh, jeune mâle te amoo femelle amoo élevage moo tax ñu génn lii pour nit ñi mën cee am lu baax am na sama benn xarit bi ñuy wax Abdou Karim saw mu nga dëkk ba Lubidi nit Lubidi nit ku baax la kilifa la dafa ñëw jënd fi xar téeméeri junni añal yàlla mii xam pour yokk élevage ñu mel ni ñeneen ñu jóge Saalum ñëw jënd fii pour yokk seen élevage kon ñii ci dëkk bi ek ñeneen maa ngi leen di woo ñëw jënd jënd jënd tëng. dañuy bàyyi suñu rubrique bi nga xamante ni mooy euh, vétérinaire docteur vétérinaire bi nga xamante ni ñaax yi ñu fas yéene ñaax ci tabaski bi ñi nga xamante ni ñoo yor xar yi lan lañ war mën a jëfandikoo pour xar yi nekk ci bonne santé ba nga xam ne nit ñi bu ñu ko lekkee nekk ci bonne santé du ñu am benn problème ñu bàyyi rubrique boobu te ñëwaat ci plateau asalaamaaleykum man maay euh, docteur Ndaw Masuka euh, nekk docteur vétérinaire fii ci Grand Yoff donc parti yi Arafat. ok donc dinañ wax ak éleveurs yi wax ak également euh, ñi jënd donc li ñu leen di wax surtout mooy ñu def ndànk parce que heure bii nii fekk tabaski ngandal xar xajatu fi donc lu ñu mën def rek mooy maintien parce que ku jënd sa xar heure bi yaakaar ne fekk tabaski dina fi toll nu la neex donc bu risqué da ngay def lu ñuy wax ay surcharge. mooy feebar yi ñu gën a jànkonteel fi mu toll nii mooy problème mu biir muy biir bu daw wala fër donc yooyu c'est à faire attention parce que yooyu tamit après daf lay arrière loo donc euh, ñiy jaay ak ñiy jënd yëpp ñu def ndànk ci lekk bi ah, parce que heure bii daanaka faj bu bëri day passé parce que am na garab yoo xam ne mënatuñ ko joxe parce que médecine vétérinaire du rek euh, mala bi mais mala bi dafa jëm ci nit ñi donc dañuy aar mala bi prévenir euh, prévenir aussi santé nit ki koy consommer donc muy éleveur muy kuy jëfandikoo ñu def ndànk ci xont xar yi donc pour le moment li ñu gën a mën a digle mooy nañ joxe ngooñ bu bëri wala mbokk ngooñ mooy ay ñax ak yu mel noonu ñax bu wow parce que yooyu mooy tax biir bi mën a digérer correctement donc ripaas yeeg ceeb yeeg mburu yeeg yu mel noonu ñu defandi ci ndànk. mbokk yi ginnaaw bi ñu jugee ca baas ba nag fa nga xamante ni fa lay jaay xar yi. ñu ngi fii nag ci biir série bi ñu fekk si fi maam góor euh, euh, gis nga euh, li nga xamante ni moom la yor ci fii ci biir série bi la nekk fee ca baas ba mooy suuf ko di ko jaay tabaski bi li nekk fii ci biir série bi ñoom ñoo ko jur meññ ko ba mën a teg fee di jaay ay xar fee moom ñuy yóbbu xar yi ñuy jaay lu ci ëpp fii lay jóge waaye li ci des nag sama ay xarit ak samay kóllëri ñoo ma koy jox moom di ko fa mën a jaay mais li ci ëpp xar yi ñoo koy produire. mais fii nii yaa yaay produire sa bopp fii nii wala dafa am ku ñu di la produire wala danga nga ci yëf yi ba xam ko wala lan. ah fii nag moom pour le moment man maay gérer affaire bi quoi je suis le man maa koy gérer quoi. parce que waaye nag yàlla dafa ma boole woon ak ay nit yu baax yoo xam ne ci élevage bi ma ànd ak ñoom ba tey ma mën a gérer sama bergerie yi nga ci élevage. pour la ah, vraiment première émission xar yi xar bi ñuy wax Mandela la présenté mu gagné ko. yeneen yi docteur naa ay xar ñu jur doon ay vainqueur macha allah yàgg naa ci def naa ci alhamdulilah. fii instant bi yan euh, femelle nga fi ak yan mâle yoo xam si ne yaa ngi siy fi mu nekk nii maa ngi benn sang doomu euh, sëtu Karamak moom la ñuy présenté moo nekk nii quoi fi mu nekk nii maa ngi yor sëtu euh, moo nekk nii. waaw waaw am. non moom amagul deux ans. le dix août deux ans le dix août incha allah lay am deux ans. maa ngi mu toll. waaw xam nga rek bu dee race bi dafa spécial. pour nu mu toll day waay ak rafetaay ci ñoom lay nekk. te ñun fi mu nekk nii xam nañu am solo yi gën a baax xam nañ ko te ci la ñuy liggéey. lan moo tax mu dugg ko ci ci ci ci famille nii. xam nga dama yoroon benn maal bu ñu wax prince mi ngi fii dama koy noppal rek waaye moom moo def tour ba pare moo tax bii war a ñëw def tour quoi. ñi mu ñi mu nekkal ñëpp kenn tollagu ci diggante. non pour moment moom tàmbali na ñaar euh, ñett la ci sayir. mais am na ci yeneen yoo xamante ni prince moo leen sayir prince mooy doomu gelewaar bi quoi. mais ku sayir ba pare du la laat. yi kii lañ xar yu tëb yi ñoom daanaka du ñu la toppee boo taxawee rek dañ xam ba xam kii am na dara wala déet quoi. vraiment mbay sama xol sedd na maa ngi ñaan yàlla suñu borom télé yi ci àdduna waxuma télé ci Sénégal TFM doon première. amiin première di. maa ngi koy wax ci barke ci àdduna laa wax de oh, mooy ay senti ay TNT yi ngay wax yooyu ci àdduna waxuma Sénégal xam naa Sénégal àdduna laa wax. maa ngi ñaan yàlla suñu borom te nekk ci bopp amin yàlla na ko yàlla def kon mbokk yi fii la leen tàggoo émission mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax euh, daral daral nag tey gis ngeen li nga xamante ni moom la ñu suñu vétérinaire wax nañ ko topp bu ñu toppee conseil yooyu rek mën nañ gis euh, njariñ bi fii laa leen tàggoo di gërëm off mi nga xamante ni moo nekkoon ci caméra bi dañ jox dig dajee beneen euh, numéro incha allah jë suba incha allah suba beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi